le général Wally ak ki nga xamante ne mooy Bada ndax ñaari xale yoo xamante ne dañoo nammante xale yi tëkkuwante nee naa la ñi moom bu arbitre bi sifflé bu yéexee sifflé rek ñaari mbëri songante waaye nañ bàyyi bi arbitre bi sifflé ñu songa ñu daal di songante le 26 avril ba tey ak ndéwénal ñu ànd ci Ouzin Production si diggante Bada 2 ak ki nga xamante ne mooy général Wally Parcelles ak Pikine derby bi ñëwaat Bada 2 nuyu naa yaa Amadou ñoo lay ziar bu baax a baax la jox sa waaci waay di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak si weeru koor gi nii tedd bi lépp luñ ci ñaan rek ak lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla suñu borom fulal ñu ko defal ñu ko ay tawféexe ñu ziar ñëpp nag ziar yow mu yaamatu ak gars yi lii yëpp ñu ngi ziar sama adversaire sama maa ngi koy nuyu bu baax. Mhm, aji général Wally nuyu nañu. sant yàlla di julli ci yéen di sant suñuy ñaari waajur di baalu ak sama adversaire nag si weeru koor gi mais du ko xamal dara tamit boobu ba léegi mu ngi wax. sant ni ay waxu daf lay wax lu muy wax nii dafa tiit moo tax muy wax loolu noonu mais kii dama bëgg bis bu at bi soufflé lu muy wax nii matu barki maam Seera Fall lu ko dëggal ñu daje maanaam moom parce que affaire du ay wax kase média bi tiim la nii ngay wax nii dafa neex barki yi karim mais bu ñëwee si biir géew bi leneen la ñuy indi mais dama bëgg moom lu muy wax mu dëggal loolu noonu parce que man dama ñëw pour wane sama bopp kii bu taxawee bu taxawee barki axuraan mu dóor ko ba mu gàll waaw yaa matu man dama xalé la ya ma yagul xalé la man bamu judo yagul xama wa deglu, da ngay deglu dañi waxtaan. xalé la xalé da ngay kous magum jëm nga nga nan xalé la waaw ah, yaa man xalé la ba dugg ci lamb sam papa dafa kon mom bu taxé di wax bëgg a bëre bare pour am ciowu lamb la man yoy du ma tontu lu bëri. waaye moom xam na ne am na combat moo tax mu ut ay nervi nervi yooyu noonu xamuñu si bara waaw moom xam na nervi yi fu ñu nekk lu wér a wóor yaa madu parce que Serigne Saliou Mbacke ah, ay nervi ñu fekk si la ba Pikine non pas waaye dañuy gisee fenn te moom nervi yooyu mu ut ñooñu ñemewuñ sax bara ñemewuñ xool bara waaw ndax moom gaynde bu yabee bukki rek si doxin wala suñ moom biir koñam bu mu dëkk am na ñoo xamante ne xam am na ñoo kenn xamu ko fa kooku laaj mu ne xamuñu ko bu xam man sama koñ avant may bari arène boo fa duggoon laaj bara mais bara man dem naa koñu général Waly bi ma fa demee mbooloo ma fekk doy na waar de. waaw loolu kafe la café café ñun xam ne woo naa la waaw dafa tombé nga nga lii waaw ma làmb instant nii waxuma xam na ma sax. mais ci làmb ci yow la koy xamee parce que day ñëw prouver. waa instant nii làmb xam na ko ndax génn interview di wax di wax wajajaja na bëgg am promo. pour mën a doo ko amee fi man xale laa damaa bay sama waar man ba may posé di déposé licence soixante soixante quatre kilos laa soixante quatre kilos laa xale bu ndaw laa barki alxuraan karim barki Serigne Saliou Mbacke. micro bi nga jox ma ko fii sa waay baatu xale bi si boobam ngay bàyyi yaa ngi dégg fii ñëpp ay xale lañ maa la gën a nekk xale fuuf gaynde yaa ngi dégg yaa yàlla naa nekk Jordan yaa ngi dégg xam nga lënd la sa business yi ngay jël ngay ba boobu bu dee bëgg nga maa daan. matu maanaam kii ay dëgg naan doom naan doom naan doom matu man du ma doom kii kii wax yooyu noonu muy wax wax yooyu noonu muy wax par kii borom Touba Mbacke ay xawma sa laa ko war a wax quoi kii kii lu muy wax nii kii lu muy wax nii affaire bi du loolu biir bi nga dëkk barki Seexul Xadim affaire bi du loolu affaire bi du loolu di nga affaire fu nga ko wéer lenn la sa waay yow sa kanam gi ku xool xam ne da ngaa jël ay comprimé ba doyal añaa ni matu matu xool damaa naan ba doyal loo naan ma ne kon damaa naan ba waaye làmb ji làmb ji billaahi doo dërëm gay de war na borom Tuuba Mbàkke sa waay yow lënd nga barki songal bu laa maa ngi nii liggéey boo oh, duggee doo doo ko jaxase war nga borom tubaab mbaa nga borom bés tànk yi doo doo ko jaxase oh, bis bu ñu sumee ko barki axuraan doo taxawoon ma doo ma attaqué fekk fi mbaxalu toj sa mbaare nga borom tubaab mbàkke bara yow sa tànk yi yow gay ne dama nga toog si tànk man xale bu ndaw la barki maam jaara buso yow ba alxuraan dinaa la duma duma yu métti ba nga ba nga daw génn terrain bi dinaa la dàq nga daw génn terrain bi te du neex dinaa la dàq nga génn terrain bi jëluma dara man xam la laay naan ndox laay naan boisson ah ak lu neex laay doon yow nag li ci boole moo bëri te li ngay boole nit mënu ko boole am doole yow doo xeexal man li ngay boole nit mënu ko boole am doole li ngay def nit mënu ko def am doole dem sol sa jege ci waay yow dama nga may ñu nga naan ay jege sa kanam gi comme nen sa kanam gi comme moo tax xoolal kanam gi yaa ma barki Serigne Saliou Mbacké damay dëlu ba mu wax la ba pare barki alxuraani karim laa la waatal barki Serigne Saliou Mbacké ki maa gën ne xale maa bu doole. ñeena man damay naan yow dama ko ñan dama ko ñaan minute bu arbitre soufflé ñu xeex bëre. xam nga xeex xeex cinq minutes kay di ngeen xam nga ñooñu bëre dama koy wan carrément lu ma mën a funtiir xale bu ndaw moom yaxam magam bii man sama yaxu xale bii lu ma mën a tenir moom maanaam su waa yow kii lu muy wax moom. moom léegi tàggatool nga woote. duma la may dara de. max la dara neex la max la dara saraxu ma la waa delu ma la saraxu ma la déggoo lu ma la saraxu ma la saraxu ma la simee ko ngay xam ne tànk yi dama siy toog saraxu ma la benn problème dama ne la a ah, may déglu da may déglu ma saraxu ma la ñaanu ma dama lay fekk fi nga taxaw ma duma la daan la ndox laa la boo fekkee ba muy taa bu ñuy xuus bu nangoo jiitu ndox boo fekkeewul ba muy taa ndox fasal laa dëkk parcelle laa dëkk Thiénaba 13 eh nekku ma nga foog da nga tàngal sama yaram moo tax sama deret ak sa waaya <laughs> yaa waa man maa ngi woo baa parcelle lu ko dalee waa LBK Thiénaba 13 waa def sa poos waa dal jàmm waa gem di woo waa mbayaar ba di woo waa mafia 44 mafia def sa poos maa ngi woo ñëpp di woo tamit waa lamiral boobu ma kenn ku si nekk maa ngi lay woo du woo tamit koddu koddu Fassane maa ngi lay woo maa ngi woo bi yëpp di woo waa Parcelles nañ ñëw jàpp si combat bi kii bu jour a dinaa ko daan kus ko kus tuwaal. yaa ma dama ne ko. bara wooteel kay na ah, si woote bi na bokk si woote dama ne ko ndox laa bu fekkee ba muy taa bu ñuy xuus bu nangoo jiitu. baax baax baax préparé la. waaw ñooñu woo nag noppi waaw déglu naa la nga woote may ma woote. ñoy wo wa ginaaw raay bu ñu dëkk ginnaaw raay bu ñu dëkk ñoo leen wo di wo wa Pikine di wo wa Thiaroye di won wa wa marché Djib sama marché boobu ma leen wo woo Tafa Sey sama gora bàcc tamit di wo tamit wa wa ki tam ñoo leen wo wa waa Jéggi Raay ñoo leen wo wa wa Naan ñoo leen wo tamit di wa sama mbokk séeréer yi maa leen wo sama mbokk séeréer yi maa leen wo bol bool bool yi waa Fiseen Baaraan maa leen wo wa Gat ma leen wo di wo nak sama mbokk bol bol yep ma leen wo ñun ay bool bool lañu Bambey séeréer lañ dëkk kon ñooñu woo ñun ñëpp ñu ah, sama mbokk yaay séeréer yi waa caalaan ñoo leen woo ñu ñëw jàpp si combat surtout nag ginnaaw raay bu ñuy bàyyeekoo su mel ni ay ñum tiis iPhone ñoo leen woo tiis waa xam nga ko tiis waa tiis ñoo ngay woo si combat bi tam mu jàpp si moom da siy jàpp sax ne si gën a jàpp ay ñoom yaama leen tamit ñooñu si ñooñu ñooñu woo sam papa maa ngay woo moom sax du ma ko woo ay sam papa la maa ngay woo di woo sama turandoo di wax na nañ ma nañ ma jàppale si combat bi waaw nekkul nag lu ngand combat bi neew lu ngand waaye nañu nañ waaw non du du ngandul waaye ñooñu woon ginnaaw raay baawu kenn baawuñu kenn caaroy waaw mafia saret beeg waaw mafia cent franc cent franc yi man ñooñu laa jiital cent franc cent franc yi toujours moom laay wax man lépp cent franc cent yi moo ñu indi bañ toll fii kon cent franc cent franc yooyu mafia bi ñoo leen di woo ñu ñëw jàpp sama jigéen ñi ñoo ñu préparé tamit xam nga nam fay demee ñu ñëw esaat eh, ñoom ñëpp sama jigéen yëpp sama rak yak sama mag ñi ñoo leen wo ñom ñëpp sama papa mbeuri yi ya doon ñëw nak ñen gëna ñëw combat bi daam lu ñu wone sama baye mbeuri ko ci mel sama papa adu baxum ñaa leen ma ngay wo sama papa de gol gaay ma leen wo sama papa yëpp ma leen wo am ban xam xam am ñu mom sama sama papa rek ñoo fi nekk ci lamb ji kon une fois ñu leen wo ñu ci japp waaw ndax ñoom moom suñuy papa lañu ndax nit ki moom bu doon sàkku fa muy juddoo dañ koy sukk di ko ay dom mbër lañu pire ragaluñu loolu waaye incha allah rabbi nag bis baa incha allah dinañ wane leen jërëjëf nee na ay doomi mbër lañ pir waaye nee naa la combat bi cay biir combat général waale ak ki nga xamante ne mooy Bada de combat bii nii ni ma ko waxee woon rek moo dàq combat grand combat bi cay biir combat ak Ouzin production ndéwénal le 26 avril ci diggante Bada de ak ki nga xamante ne mooy général waale Parcelles ak Pikine ayca c'est bon